aɗa yeeri kala njeeme <laughs> musle <laughs> mais musle xaritu xaritu xaritu Talla Sylla la woon nekkoon président des femmes ci parti Talla Sylla bàyyi na taali ma ngi ca Macky léegi nag la Talla Sylla def conférence de presse ne moom Macky daal xelam dalul ci moom danaan tekk looloo metti ki nga xam ne mooy musli musli mooy ñëw tontu nag ki nga xam ne mooy Talla Sylla ñu déglu musli musli salaamaaleykum <clears throat> man la Mously Diakhaté ngeen baal ma campagne bi rek di rey sama baat bi waaye taala si laa taala wax dëgg yàlla bett nga ma ndax yow ki waroon bañ tey bañul Idrissa Seck moo waroon bañ te bañul ma ne Tanor moo waroon bañ te bañul Moustapha Niass moo waroon bañ te bañul <clears throat> ngeen baal ma baat bi ndax meeting yi waaye taala la ka metti mooy la ma waxoon ca émission ku caaba rek la bato da taala paar musli koste yàlla def léegi nag moom taala ma paar ma koste léegi la bato da maki paar waddu koste la ndax taala yenn yi soxor la ak iñaam ndax xam na ne moos Ablaye Wade bés bu Macky Sall gañee man mos la jaxate xaaruma ku ma sedd poste ministre xaaruma ku ma sedd dara waaye man day fekk rek la ma doon gis ci gis-gisu politique mu nekk moo taxit suba incha allah bu neexee yàlla danaa ñëw fii ci émission Kouthia Show bi ndax baat bee dee bi ndef leetar ñaanaat ko njëkk ne ko taala na xoolaat xelam bu baax ndax taala ab intellectuel nga taala Cheikh Bamba Dieye bañul taala Idrissa Seck bañul taala ay a Fall bañul taala ñi ma ki waxal ñëpp Moustapha Niass kenn bañul nga ne tekk tekk na gerte di jéem a jaay tàng xol ak soxor ak iñaan bañ a fekk waaye yàlla baax na suba nag danaa wax ak ci ñaari kàddu danaa la bindab leetar ci français yónnee la ko bindab leetar ci olof yónnee la ko ndax yenn yi kenn xam lan ba ma waxee ba la bato da taala paar musli costé da metti waaye génération costé mooy génération musli jaxate mooy mouvement costé la bato de Wade part Macky costé le chef de bato Macky les dockers sont là Youssou Docker Moustapha Docker Jean Paul Diaz Docker de bato c'est Macky ma ne kon le commandant des dockers ku muy doon waaye nag ñu ne tekk taxaw ne duñu jënd ci marchandise bato bi wala duñu wax ak borom bato bi ah mooy ñi nga xam ne amuñu baat amuñu siyo nekk ci buntu teen gi di wax yenn yi nag soxor la <laughs> ay may ay ay may sa baat bi bu baaxoon kon looy wax yow kii xaw nga koo dajji taala yow taala sa waay la woon bul ko def nii yow tamit nee na ne tekk moom wóolul Macky li tax wóolul Macky moo ko xam yow na nga topp rek da noppi man de loolu laa leen di ñaanal di ko ñaanal ñaari parti yëpp ku ci gañe baax na ndax man ku fi nekk rek maa ngi fi toog di xaar wuyu ma léegi boo leen nag ba ñu woo ca pale ba daa dee teg teraanga yi Macky Sall na jooju taxaw Macky ni may nur ak yow Macky ma Max booy xoolal ni ma nur ak yow am na benn doom boo xam ne maa ngi moom benn lañu Macky xool ma Macky xoolal ma xoolaat doom bi xool ma Macky ñoo nuroog koll nuroog lax bu boobaa yow musli ñetti poste rek ñoo fi am ministre de la femme ministre de la solidarité nationale ak ministre de l'entrepreneuriat te ñett yëpp lu mu bon bon dañ ca jàng tubaab yoo xam ne boo toogee ca bailleur de fonds ya tubaab yi joxe xaalis il faut nga wax français bu neex ñu mën laa jox woo ma ma nekk sa interprète loo wax ci olof ma firi ko ci français su ko defee weer bu ne nga compal ma waaye bu fekkee gane nañ <laughs> ay buñ leen gañee buñ leen gañee ngeen xam ne jaaw boobaa ma dem ca wet ga rek na ko wadd njaag fara wadd njaag daara wadd njaag ca songum xeer sama goro sama goro waaye tamit bu makki gañee xool leen sama kanam gi ak bu makki benn la Samba Sall laa tudd dëkk fatik yaroo Matam xool ma su ma sonoon ay verre rek ngeen na Macky moo ne ci roq bi Macky anka dimbali ma rek compal ma waaye ay Macky boo gañee boobaa xanaa suñu waa ji fekkee ma ci boole xanaa da nga koy def ministre de culture wala ministre de communication ay boobu subvention ya ba yuusu jompal ma dix millions na ma Kouthia berul ci wet ku ci gañe laa àndal forma fenn kenn laa gëm mooy yayaa jaame sama xarit yayaa wuyaay tarara